J'ai évolué ci milieu du milieu journalisme rawatina sport l'âme, l'âme, nous ko évolué depuis quelques années lan nga ci wax en tant que femme ci milieu bi nattu la rek comme on dit parce que <laughs> su ma dee su ma xooloon sama yaay par exemple du ma def euh, du ma nekk si làmb di parce que elle crie sur euh, sur tous les toits que ko mais man c'est une et que nit boo nekkee si benn affaire rek nga yàgg see évoluer nga yàgg see nekk mu nekk loo xam ne yaa ngi ciy bay sa waar da ngay dem ba à la fin ça devient une passion da nga ciy nekk te yàlla tax wala nga bëgg ko tamit parce que métier boo nekk rek que ce soit muy avocat bi journaliste bi médecin bi. nit ki lu muy def di liggéey ci àdduna rek daf koo bëgg moo tax mu koy def boo gisee koo xam ne nekk na ci liggéeyam boo xam ne bëgg ko sax du ci yàgg day bàyyi bu ci amee àdduna la ca biir tamit day arrêté parce que bëgg ko avant tout il faut avoir l'amour de ce que l'on fait pour pouvoir continuer wala persévérer si li nga nekk. donc comme waa comme as dit nous sommes des femmes ñu ne si làmb ji di nga di nga dégg lu ne di nga gis lu nekk ngir lu ñuy def ci làmb ji milieu bi xam ne ay dof ñoo si nekk loolu lañ lay wax tout le temps mbëri wéruñu mais buñ ñu xoolee ne mbëri wéruñu bu gis leen ci télé télé bi ñuy wax di clash di wax mais au fond sur le chemin ay nit la ñoo xam ne ñoo seen famille yor ay doom yor ay jabar donc xam luñ bëgg yàlla moo leen natt comme ñun ñu nekk di ngemb di bëre mais après ça c'est une autre vie ñun tamit après le journalisme après le reportage après tout c'est une autre vie donc nattu la dañuy nangu nattu yàlla rek et on est dans le truc pour jafe-jafe bëri na. donc ku nekk milieu bi nga nekk am nga si ay jafe-jafe sànq yaa ngi may tooñ di wax ay anecdote yoo xam ne dund naa ko mais sant yàlla rek parce que ñu ngi toog tey di ko nettali ndax amaana mu am mënoon naa demee neneen ba tey dañ naan rip comme ni ko xale yi di waxee aas mais macha allah ñu ngi euh, continuer di nekk di bay suñu waar et que ça fait plus de dix ans dix ans presque on est dans le milieu sportif loolu na si lamb ji. donc sant yàlla. Euh, comme ni nga ko waxee anecdote yi nañu bëggoon nga ñëw ci benn aas yi xam na fii <laughs> aas yi lu ne dal na ko ci làmb ji dañ bëgg rek nga fàttali ñu ban anecdote moo la ci gën a marqué. waa ñaar je peux ñaar parce que ñëpp moom bu ñu xamee aas peut-être euh, si euh, signature de contrat Yékini Balla Gaye la woon peut-être bi ñuy xeex ci Radisson après Balla xaw ma kan moo daan sama kaw laa je sais après ma xam noonu ñu yor yenn yóbbu beneen bi c'était Rock je sais pas kan Iba Mar Diop la ah, Ousmane Diop Iba Mar la Diop la woon bim Mbalax bi mu daanee daw ñëw si ne maa daan maa daan man ko waa yaa daan ne këlëb daanu <laughs> donc muy ay anecdote yo xam ne dund nga ko ci laamu mais après ça passe quoi d'accord mais nekk jigéen nekk ci milieu boobu euh, xaw na doy waar parce que parfois dañ lay dëkkal foo dëkkul parfois ñu ne aasi ah, mbër bi la faral benen mbër bi euh, di la ñu lay takkal ay pot genre yooyu noonu expliquer ñu un peu situation euh, nit fu am ay xarit am ay partenaire dafay am ay ñoo xam da lay yàlla da leen boole ñoom sa liggéey ci ngay xamee ay nit baax ci ngay ay nit bon ñun man bok lay wax man le milieu de Malick m'a permis de connaître des gens formidables ay mbeur yo xamné gis leen ci télé bi ñuy toog di wax nga taxe leen dara alors que boo xamee humainement nga xamné ñi ay nit ay nit lañ je peux pas citer de nom duma citer mais ñom ñi may seetaan xam nañ man xam na et tissé na ci ay relations particulières ak ay nit yo xamné ils sont toujours là pour moi du ay parce que milieu bi c'est complexe des fois nga am ak affinité ak nit sax ñu yow da faral wala nga sax pour jaay alors ñu suñu nit ki nga relation tu ne waxtaan ngeen mais pour jaay sa des pour sacrifier sa vie wala as pour sacrifier sa man ci maintenant tu peux avoir un ami wala des amis lutteurs yoo dañuy every time su ma dama leen di dégg su ma amee lu ma soxla ci ñoom dama koy am sans problème mais n'empêche am na fu ma yema ak ñoom te am na caractère boo leen di wan wala am na fulla boo leen di wan yéen ñi nga xam ne dañuy base si ñuy xalaat sax ne nit dina ko defal nit parce que li wax mooy daf maa jaay ak ma moo ma jaay wala genre yooyu noonu doo ko séq ak moom parce que doo yegg ak moom foofu mm-hmm. mais nag di nga am relation humaine yoo xam ne da ngay ak moom parce que nit nit la aussi xam nga te xool tamit yàpp ak deret la nit ki da koy gis am loo ñu séq mu ji la dara nga bëgg ko te yàlla tax wala nga nekk ak moom te yàlla tax donc man personnellement Asi am naa ay xarit yu bëri muy ci VIP yi muy ci antichambre yi muy ci euh, espoir yi. ñoo xam ne samay xarit lañ dañ may woo di ma di ma nemmeeku di xool su ma nekk donc voilà. d'accord ñu ñëw ci volet mystique bi parce que parfois boo nekkee journaliste nekk ci làmb yow yaa ngi ci wetu mbëri yaa ngi ci. wetu cumukaay yi ñu ci wax lu bëri naan am na yoo ne boo ko gisee doo am doom ak yu kenn xamul parfois volet mystique boobu yow lu la tiital. waaw ëmb rek d'habitude on am na garab yu euh, téere yoo xam ne jigéen waru koo gis wala jigéen waru koo xool da koy teree am doom wala da koy teree euh, am jëkkër mais je me dis man góob gis nañ fi awa madame Pape Maguette Ba sëy na ci làmb ji am na doom macha allah bébé Zahra ñu ngi koy nuyu. gis nañ fi Aïssatou ma madame Niang sëy na te ci làmb ji la ne am na doom bu góor bébé Ndiaga ñu ngi koy nuyu de passage moom tamit. donc pour te ay fiction la rek wala ay gëm yoo xam ne basé wul fenn Ndeye Coumba Fall aussi waaw Ndeye Coumba Diouf aussi nekkoon na ci làmb ji te ñoom ñëpp maintenant am nañ ay bébé ab sa doom mu ngi na jëkkër am doom te dire que ni ay xalaat yoo xam ne bien que ni ay réalité la nag am na loo xam ne am na ci làmb am na téere yoo xam ne baaxul ci jigéen dañ koy wax mais ñun tamit ay doomu lébu la ak tukulóor de. Mm-hmm. waaw xam nañ dara fagaru balaa ah, ngaa dem sama papa moo ko wax HBK. Mm-hmm. nee na da xar foofu balaa nga balaa xar fa xuufa ne la fuuf yow da nga koy fuuf ba pare balaa mu laa ne fuuf. <laughs>